Kaç euro var? çok kanda. Thank you. bii la bii la non jeexul warut jeex xanaa oh jeex non waaw am na ab kii la. waaw ah, pour mu kii eggul fële. ñoom bu ñuy jël suñu bëri xool fi duñu liggéey. ginnaaw sa lay wax